lii xew ci àdduna tax gàllankoor ba ñu baree bari yëgul sax añ am na te loolu dara lu rut lii nga xam ne muy xew ci àdduna rek muy gàllankoor boo xam ne gàllankoor na lu baree bari waaye jullit yi nag ñoo ca raw ndax barab boo xam ne danga naa wax ne ñaari million ak genn wàll ñoo fay daje ren ñu naan junni jëm fukki junni gën nga bari xam loolu la fa daje néew na lool ci lam daa jël ak ñu ñaan suñu borom jeexal ko ci àdduna sépp muy Covid bi jeexal ko ci rawatina réew jullit nag rawatina suñu réew mi kon nag ñu ngi ndokkeel ñi ñëpp mm, tey dellu rek di delloo suñu bopp ñuy jiggóoraat suñu borom sa di ko ñaanaat ci li nga xam ne moo fi nekk tey gàllankoor diine ji di gàllankoor lépp ñaan sunu borom mi nga xam ne lu mu fi jëlee mu jóge fi yàlla na ko fi jëlee rek jàmm ban delluwaat ci nen daa doxe ci wàllu diine ak aju aju ñu xam ne nag àdduna ab jaaruwaay la boo xam ne nii rek lay doxe day neex tey naqari ëllëg ca jamono yu ne rek ñu ñuy waajal lu mel nii di am ndax ibnu omar danaa wax ne saaboo boo gontee bul jàpp ne da nga xëy suba saa boo xëyee bul jàpp ne da fanaan ab jullit foofu lu war a nekk kon boo amee ak wér am ak kattan nga góor ba di ca def lu baax ca ca séentu ak wér di nga xam ne mooy ñëw saabooy dund nga farlu def lu baax ca xam ne faatu mi ngi ñëw yéen bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne adduna ak man mii de ba ni mel mooy mel ne ku war aw fas ci bés bu mbooye ngay dox ba yàgg tàngaar jàpp la nga jàdd ci keru garab di serlu ndiggante sang nga fay am da xam ne fii da nga fay noppal waaye am na foo jëm ci ay goo fa loolu la mooy du suñ dund bi ñu dund ci adduna ab escale la rek waaye àllaxe fee leen jëm foofu mooy suñ kër kon nag nan koy waajal bu baax a baax a baax ibnu mas abdullah ibnu masud danaa wax ne danooy nekk ci yoonu yoonu guddeeg bëccëg ak yoon la rek ñu si yaar dem ca boo xëyee xamal ne sa dund mi nga wàññi te loo jëf ñu ngi la koy bind di ko denc koo xam ne saa xëyee rek sa ñàkk nga dara ci sa dund te nga xam ne loo jëf itam bind na ko denc kon war ngay fogaroo bu baax a baax sa xam ne faatu saa wu ñëw te bu dikkee bett rek lay dikkee kon nag nan góorgóorlu ba fii ci àdduna ñu fii bay bay aw yiw ndax boo fi bayee aw yiw kat bu àllaaxira lu baax rek nga fay góobe waaye nag képp koo xam ne yaa ngi fi bay aw ay ak musiba na la wér bu ñu demoo bis penc rëcc war nga fay jëlee ndax bis penc kat moom ay tool la loo xam ne loo bay fii rek moom ngay góobee foofa kon nag nañuy waajal ëllëg bu baax a baax tan xam ne farlu ak daw ak njëkkante du tax nga jër cëru kenn ku ne la la sama borom bindee ne danga ca jot kenn mënta tee nga jot si kon nag jërut àdduna si jëruñu ñaaw ba ci def lu ko matut xir ak am itte taxutam nga nga jot di fi jàmbur kene yàcc fee yow ngay kër kër yi yéeg ko wàcc la ko yàlla bind ne dana ci jot mënoo fex ba yow nga fëkk ko sa du jot kon nag naan ànd ak dal ci lépp te bàyyee sunu bopp sunu borom te xam ne lépp lu waay am sunu borom moo ko jox lu la mooy ci ab tiis wala musiba suñu borom moo la ko moyale waaye kenn mënut a moyale dara wala kenn du jox dara ku suñu borom tan xam ne lépp loo xam ne mi ngi ñëw xamal na jege na lépp loo xam ne mi ngi ñëw xamal na jege na lu dul ñëw képp mooy sori waaye lépp loo xam ne wër na doonte téeméer at la itam léegi tey màgg kon nag naan xam ne adduna si lee mu jeex dafa waaye yàgg-yàgg ab dundub sa dundub fi mu toll mënut ab téeméer téeméeri ñaar fukk gën a bari te loolu nag tuur lu tuur la ci àdduna lu tuur la ci àllaaxira kon nag dañuy góorgóorlu lu baax ci loolu fexe ba di bañ a waaroo ci suñu bopp nañuy jàng ci nit ñi te buñ jàngee suñu bopp def loo xam musiba ba ñoo xam moo xam ne yaa ko jëkk def ba nit ñi jàng ci kon da koy moytu kon fexe ba di xool ci nit ñi ku def lu mu warta def nga jàng ca loola ba yow bu doo ko waaye bul nangu nag nit ñi jàng ci yow nga doon école nit ñi te xam ne lépp loo xam ne am nga ko lu néew néew ca doy la moo gën fuuf nga yor lu bari lu ne gàññi ca ci fitna rek topp la ca mu teg la coono bari nga yor lu néew ca ca doylu moo gën fuuf nga yor lu bari loo xam ne foo toll yaa ngi tistasee ka daw te nag rëccu yëpp rëccu bis penc moo ci moo ci yees dem ba bis penc ngay rëccu say jëf-jëf yëfuñ ci àdduna ndax foofu rëccu du fa am njariñ ak bàyyi ba faatu dese la nga soog naan mooy woon def nangam nangam laa bëggoon di jéem a dab dabal yëpp ku ne da koy moytu nga xam ne doylu bakkan moo gën lépp lu waaye mën a am am ak doylu moo gën yóbbal boo man di am ragal yàlla ko gën nañu yóbbuloo ragal yàlla sa ab xol itam lépp lu ci tàbbi am yaqiin wóolu sa borom moo moo ëpp lépp fopp sa xol te ne moytu dikk sikk sàkk sikk sàkk moom ci ak kéefar la bokk nan koy moytu bu baax gumba yëpp rek gumba xol moo ci yées koo xam ne soxal du leeru suñu dugg ci boobu mooy yées ci gumba yi waaye mboolem am am yi nag am amum riba moo ci yées loo xam ne danga koo am ci muy riba mooy yées ci alal yi waaye lekki alal yi jërëm itam mooy yées ci lu ñuy lekk fekk alal yi jërëm nga lekk nga fexe ba jël ko ko kooku mooy yées ci lu ñuy lekk nga xam ne itam danaa wax ne juróomi yëf a ngi yoo xam ne tooke la yoo xam ne day rey waaye juróomi yëf moo koy lo moo koy lugg adduna tookale la yoo xam ne day rey képp koo xam ne bëgg nga du topp ko daan daan la rey luy tooke lu koy lugg nag mooy dëdd adduna adduna boo ko bëggee jariñoo da koy dëddu alal noonu la boo ko wutee bëgg ko jiite ko da lay waaye li koy li koy eh, lugg moom it mooy di joxe asaka ak sarxe wax moom it lu bari tookale juy rey waaye lu koy lugg mooy nga tudd yàlla bu bari boo tudd yàlla bari waxtu la dara ab dund itam boo ko toppee muy demee tam moom it tooke la waaye topp yàlla mooy lugg dund mooy tax sa dund am njëriñ wax ne at mépp itam juróom fukki weer ñaar fukk benn yëpp tooke la weeru koor mooy li koy lugg saa boo yéwénalee weeru koor mel na ne yi yi moom luggal na la fukki weer ak benn kon nag dañuy góorgóorlu góorgóorlu baax Seexul Xadiim wax na ne bu leen fekk seen yiw wii ngeen koy jox gaa yu baax yi bu leen jël ñaaw téefi gaa yu bon yi nag ñu ne ko loolu lu muy amee mu ne képp koo xam ne fekk nga ko baax nga di ko ayibal di ko ŋàññi loo amantu lu baax dañ koy jël jox ko ko jox ko gaa yu baax yooyu kon nag di wax loo wër sa wax kilifa gi kilifa yi ak gaa yu baax yi moom jur xult ndax ku koy def ku ne loo amante lu baax dañ koy jël jox ko ñu baax ñooñee képp koo xam ne yaa ngi ayibee itam yaa ngi tooñ ab tooñkat koo xam ne ab saay nga dem di ko tooñ boole si nag suñu day day jël ñaaw teefu waa joojee di la ko teg kon nag tooñ baaxut tooñ ku baax moom ma ma réussir waaye tooñ ab saay saay itam baaxut ndax boo ko dee tooñ dañuy jël ay ñaaw teefam di ko sëf moo tax sëñ Tuubaa wax ne képp koo xam ne ba ngaa suul lu ñaaw de ko sóole def lu rafet ku def lu ñaaw yow defal ko defal rafet mooy mooy moo koy sàng mu wax ne def njëkk mooy fekk mooy fekk ñaawteef loolu la sëñ Tuubaa wax sëñ bi wax ne li gën li gën ci aw yiw mooy nga bàyyi sa bopp ak sunu borom te bañ ko bàyyi kenn kon nag nañuy gën wóor bu baax ñu ngi <clears throat> masawu coono mboolem population Sénégal bépp nag ci xat-xat yi ñu nekkee bu yàgg ba tey mu feebar bi nga xam ne ku ne gàllankoor na rek ku ne yàq na sa liggéey ku ne teg na la fitna ñu ngi ci masawu coono yëpp di masa masawu coono kilifa yi coono boobu ba tey ndax li gën a metti mooy diggante taalibe ak sëriñ lu leen tàqale ci fexe bi daa mel ne daa bëgg a tàqale diggante sëriñ si ak seenu njaboot te ku ne xam ne na ab taalibe lay njëriñam mooy mu jege sëriñam ci feebar moom ñoom ñu koy fajee bëgg noonu wane ne li garab gi bokk na ci sorale ay nit ñi ndi nga xam ne kon léegi kenn du mën a seeti sa mbokk kenn du mën a jege sa mbokk kenn du mën a jege sa sëriñ loolu nag musiba mu rëy la ci mel na ne ñoom loolu leen bëgg a wane ne bokk na ci li koy faj mel na feebar bi itam sonal na bu baax sëñ daara yi ndax bari na sëñ daara yoo xam ne fekk nañ leen seeni kër tëj daara jël dongo yi delloo ko seeni bokk ci bare bari gis nañ ko ci réew mi muy lu metti lool wax dëgg yàlla waaye nag lu baax moo mel noonu ku ci nekk ci lu baax sunu boobu na tey nattu waaye ñu ngi leen ci masawu coono bu baax te leen xam ne nan muñ ca xam ne lu metti moom ku baax lañ koy teg ab saay saay kenn du ko dara kon nag ñëpp ñu ngi leen di masawu coono di masawu coone suñu mbokki tukkat yi itam ñoom tam sonn nañ lool ren jii kon xam na ne bii fi amee ba fi ne ñenn ñi ngi teg ci àll bi bëgg a ñibbisi ñenn ñi ngi ci réew mi bëgg a dellu ñenn ñi ngi ci frontière yi mënuñoo dugg Sénégal bu yàgg ba tey muy tombaranke yu métti ñoo xam ne amuñ benn ku leen taxawu amuñ ku leen ci yoon daanaka dañuy tëñax sa rek ndeysaan ñoom itam ñu ngi leen di masawu coono bu baax a baax a baax di masawu coono ñëpp te ñaan yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la yaakaar tey ëllëg lii nga xam ne moo fi nekk ci sonal ñëpp te kenn xamul lum doon ndax moom du leer ci kaw nit ñi mukk ñu bare bari sax boo waxee dana nit ñi gëmuñu ko wala Sénégal danoo danoo gëmul feebar bi feebar bi ñëpp ah bari de gëm nañ ko waaye li am Sénégal nag moo fépp ci réew yi amul menn réew moo xam ne dem nga fekk ñëpp gëm feebar bi daa mel ne ñi jiite ñi jiite réew yi ñoo am problème ak nit ñi ndax li daa mel ne dañ moo tax waaye nag li am Sénégal moom adduna sëpp la am am réew moo dem am na ñu ko gëm am ñu ko gëmut kon nag euh, du du lu Sénégal jago du lu waa Touba jago du lekk ni maanaam daa leeru ci bopp nit ñi rek moo tax waaye ku xam na ne dégg nga xam nga kum dal baa kum kum dal laal na ko waaye laal yi baag defin nag mooy xaw a wuuteeg nit ñu koy jàngale moo tax bu ci amee jafe-jafe rek moo tax leer leeraage moo des ci bopp nit ñu bare bari waaye ñàkk gëm ba am ci ab jullit waaye nag ñu xam ne. ñu ngi bàyyee bopp suñu borom rek bi nga xam ne moom dara jaaxlu ko lii rek moom jaaxal na lii jaaxal na ndax ñoom ñi nga xam ne jàppoon nañ ne xam nañ lépp yaakaar naa mi ngi bëgg am juróom-ñetti weer hmm, seeni i scientifique rek seen i expert rek seen borom xam-xam yëpp ba fi ne mënuñoo wax feebar lu mu doon ak lu koy faj ba fi ne te tëneeguñ ci kenn kon nag nan ko bàyyeeg sunu borom bi ñu ko teewoon rek ci ñaan yàlla mu teggil ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah